salut les amis ziar naa leen bu baax a baax daleen a jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ñoo ngi ci saison 8 épisode ginnaaw bi ñu waxtaanee nag ci Windows Linux. tey dañuy waxtaan ci beneen système d'exploitation boo xamante ni moo ngi tudd Mac OS nga xamante ni moom la ñuy fekk ci ordinateur yi nga xamante ni moom la Apple defal alors naka la Mac OS juddoo mooy taarixam maanaam histoire am lan moo ko wutale ak yeneen système d'exploitation yi maanaam Windows wala Linux alors euh, bi ñu ko bi ñu bi ñu ko defaree nag ba. Euh, ba léegi nii nag am na ay jaar-jaar yu bëri yoo xamante ni jaar naa fa maanaam ay version yu bëri donc lan moo wutale version OS yi nga xamante ni euh, moom la ñu gis mais tamit lan moo wutale xeetu mag yi nga xamante ni dañ koy dégg saa su ne da ngay dégg ñu naan ay Mac ay MacBook Pro ak yu demee noonu alors mënuñoo wax ci Mac nag OS ba pare te aussi euh, ci App maanaam fi nga xamante ni foofu la ñuy denc affaire yi alors naka la développeurs yi aussi di def ba defar application yi nga xamante ni foofu lañ koy defar alors épisode tey bi nag Euh, bu xumb lay doon je pense dina neex trop parce que dañu si ànd ak suñu invité boo xamante ni duñ ko sax présenté parce que ñëpp xam nañ ko déjà ci communauté communauté bi moo ngi tudd Ibrahima Ciss maanaam xam a màcc ci lépp lu jëm ci defarum ay application yi nga xamante ni day daw ci Mac yi wala iPhone yi a nag yaakaar naa ni euh, bokk na ci ñu nga xamante ni dañuy moom lañ gën a sonal ci podcast bi mercredi bi passé aussi bu ñu weesu moom la ñu invité woon mu ci application bi nga xamante ni moom la euh, nag dañuy fas yéene wax ci Mac Ibrahima nuyu nañ la dalal ak jàmm ci podcast euh, Wolof Tech. hello Ibrahima sama turandoo maa ngi lay mhm. euh, nuyu di la di la ziar di mhm. euh, nuyu auditeurs yëpp. Mhm. comme ni ma la koy waxee rek c'est toujours mais vraiment un plaisir di dellu si si podcast bi di di di partager as tuut bi ñu suñu morom suñu borom may si wàllum xarala yi. allah. alors Ibrahima man tey nag dama soj tey nag soj bu métti moom daal maa ngi nii sama kafe lay naan nii ak ak citron xam naa nag du ñàkk tey ay fin fin bi dina bëri trop ci épisode bi. <laughs> non mais coolul dañ koy gérer incha allah. loolu <laughs> alors kontaan kontaan dëgg laa am nag pour dalal la ci euh, ci podcast bi saa su nekk. ndaxte car mhm. macha allah explication yu leer ngay faral di joxe à chaque fois bu ñu la invité ak pédagogie boo xamante ni bu am solo ngay def pour génnee booy génnee xam-xam bi mais euh, mais Ibrahima yow da ngay joxe ay cours ci école yi wala nu demee noonu da ngay def cours. Euh, non pas particulièrement lu ma lu ma xalaata def la en tout cas. <laughs> incha eh, allah war nga ko def war nga ko <laughs> def parce que franchement li ngay expliquer moom franchement baax na trop quoi <laughs> te xam naa ne étudiants yi soxla nañ la quoi. non dinañ gis sa ngay alors ay ñu dem ci suñu épisode tey bi maanaam macOS système mhm. d'exploitation bi daw ci ordinateurs yi mhm. yi nga xamante ni moom la Apple mhm. euh, moom la Apple defar. alors Ibrahima ci épisode bi ñu euh, bi ñu bi ñu weesu waxoon nañu lan mooy système d'exploitation yaakaar naa ni explication yi ñu ci defoon yëpp leer na et ku bëgg xam wala mun nga ku bëgg xam lan mooy système d'exploitation mën nga delluwaat ci épisode yi nga xamante ni defoon nañ ko ci ginnaaw ak ay ñoom Seydina Issa Pathé ak yu demee tey nag dañuy waxtaan ci système d'exploitation macOS mais déjà euh, est-ce que mën nga ñëw mën nga présenter wu rapidement ñu ñu xam euh, kan mooy Ibrahima parce que à chaque fois dafa am ñu ñëw bees ci podcast bi. ayca. bien sûr bien sûr alors euh, Ibrahima Ciss laa tudd euh, maa ngi dëkk euh, pour être plus précis ok donc man j'ai j'ai fait des études ah yëpp fii laa ko defee Sénégal à Dakar principalement j'ai fait des études en en électronique et électricité. <laughs> Donc, euh, euh, tout ce qui est informatique, en fait, je l'ai, je fait, mais euh, vraiment tardivement, tardivement à la CADEF. Donc, euh, j'ai fait de l'électronique bah, année 2000, 2007, yoyu noonu, juste avant mon bac. Hein, même sur mon bac, technique euh, au lycée de la Fosse. Donc après, juste ce bac-là, commencé à m'intéresser sur parce que benn passion bu doon bu doon nelaw si man la euh, donc voilà ma commencé si gëstu xool nu ñuy defaree euh, des pages internet des pages web plutôt euh, dem fi le site du zéro temps yooyu noonu mooy actuellement Open Classroom avant le site du zéro la tuddoon voilà Mathéo Nebra n'est-ce pas <laughs> donc dem xam naa xam naa j'ai le même parcours ak say auditeurs yu bëri ah certainement ah ok voilà donc euh, dem euh, dem si du zéro commencé jàng langage bi parce que juste avant dama commencé woon euh, def du design euh, tout ce qui est Photoshop parce que man je suis benn benn nit boo xam ne j'aime le visuel donc tout ce qui est infographie foofu noonu laa njëkk commencé ah même bien avant programmation donc doon dugg si ay tuto yu nu yu ma doon fekk sur des sites assez célèbres dans le temps comme Abdou Zedo tu di def des montages euh, graphiques et cetera euh, après nag passion wu euh, programmation bi dugg ma parce que avant même avant programmation bi doon naa commencé réaliser ay maquettes web design donc des maquettes pour pour le web donc mais dama dama xawoon limité parce que je me disais que oui je sais réaliser mën naa defar ay maquettes Euh, pour le web mais mënuma réaliser page web bi donc euh, de fil en aiguille noonu laa commencé di sob soblu di euh, di di xool comment réaliser comment réaliser ces maquettes web ah donc euh, moo commencé dugg euh, si kii nu mu tuddati euh, si du zéro jàng langage HTML. Mhm. affaire bi neex moo trop tamit. vraiment <laughs> ma commencé di réaliser de petites choses par ci par là di mën a di en tout cas maquette yi ma doon def pour Photoshop en page HTML HTML CSS en page statique. d'accord donc euh, comme ça après euh, amour bi dugg ma nga jàng HTML CSS après dugal ces interactivité avec du JavaScript Ouais, ah, mais tu restes toujours euh, dans du statique après nga dem jàngi benn langage dynamique comme du PHP pour interagir ak serveur ah donc euh, à partir de là maintenant euh, en 2012 ma ma dugg sama première boîte euh, qui se nomme Batiflux Et puis euh, voilà, comme ça, comme développeur web, hein, développeur web full stack. Donc euh, depuis lors, quand même, on commencé euh, de monter en compétences techniques chez Yenen Langage. Et euh, en 2014, on commencé euh, sur tout ce qui est euh, Mac, hein, Mac et développement d'applications iPhone, parce que tant mm -hmm. iPhone là, ok te yoroon naa mag ma ne comme que mag bi dafa cher. quand même il faut le rentabiliser <laughs> n'est-ce pas. business bi ñëw quoi. voilà voilà c'était une machine qui m'avait coûté plus de cinq cent mille à l'époque. Ouais. donc euh, c'était très cher balaa ma koy am euh, daj naa lu nekk. dajale naa ba sonn. macha allah. <laughs> donc euh, voilà bi ma amee mag bi et puis euh, ma commencé sëgg nag sur euh, tout ce qui est développement d'application iOS maintenant. Et après, ma amoon si chance euh, intégrer des euh, des des boîtes yoo xam ne euh, dama fa doon def toujours du développement iOS. Euh, du développement web et cetera ba ba léegi nii où euh, maintenant je suis di liggéey ak des boîtes euh, mm. mais en tant que développeur iOS voilà. macha allah alors mais parcours bi am na solo trop man li ma si jàng sax dafa bëri tu vois. parce que yaa ngi jóge ci électronique bi ak yu demee noonu ñëw tey ba ci développement iOS bi alors man damay gis foofu benn engagement ak euh, benn benn njàmbaar nga am solo laa ci gis alors te parce que loolu noonu day permettre euh, nit ñi aussi ñu mën a xam à chaque fois que ne ak fu ñu mënti nekk xam-xam bi dafa ubbeeku mun nañ jàng lu leen neex tu vois alors je pense que moo tax sa jaar-jaar bi am na solo trop et euh, je pense que dina inspirer aussi jeunes yu bari comme ni ko bëggee di defee à fois et moo tax du ma ko tàyyi di wax ñuy laajte le temps parcours yi parce que mën na inspirer su jeunesse bi alors sa parcours moom am na solo trop te xaw na niroo ak sama parcours tuuti parce que man aussi ci yooyu laa nekkoon tu vois ay matéo yu ay développement mhm. euh, montage vidéo ak yu demee noonu ah, loolu laa njëkk def sax que développement tu vois après ma dem économie def ay économie mu jugee affaire bi amour bi rattrapé ma ba ma defaat affaire technologie informatique ak yu demee noonu quoi mais c'est hyper intéressant voilà alors <laughs> dañuy dem nag je mhm. pense te li nga xamante ni tey moom ñu moom fi indi tey muy waxtaan ci Mac OS alors euh, Ibrahima lan mooy Mac OS ak lan nga ñu mën a wax ci taarixam waaye tamit li ko wutale ak yeneen euh, système d'exploitation yi maanaam Windows ak Linux. Mhm. alors euh, Mac OS comme ni nga ko waxee ci njalbeen bi c'est c'est un système d'exploitation. Mhm. donc euh, pour ñu xamul système d'exploitation on va juste ñu euh, rediriger leen ci les Euh, voilà mais Mac OS comme euh, Windows wala Linux c'est euh, c'est un système d'exploitation n'est-ce pas alors c'est un système d'exploitation boo xam ne da nga fekk principalement si ordinateur Mac yi ok donc ordinateur Mac yi je pense que après dinañ si dinañ si waxtaan mm-hmm. mais euh, voilà c'est c'est c'est fait exclusivement pour les ordinateurs Mac que Apple que APR bi di defar donc euh, historique u Mac OS déjà la première version de Mac OS mi ngi génn en euh, en 2001 et euh, c'est Apple qui l'a fait hein, sous la tutelle de son président Steve Jobs voilà donc loolu daal mooy Mac OS alors depuis 2001 bien évidemment ba léegi il y a eu énormément de versions donc Mac OS quasiment chaque année chaque année quasiment moom day génne euh, version bu bees chaque année donc euh, depuis euh, depuis sa création donc version yi après je pense que dinañ ci euh, dinañ ci ñëw mais mhm. principalement macOS opé système d'exploitation la boo xam ne mhm. déjà il se base aussi sur Unix ok mm -hmm. euh, qui est qui est le noyau un peu comme sur sur Linux euh, qui se base aussi sur sur Unix donc voilà macOS c'est un système d'exploitation qui se base sur Unix avec euh, benn interface graphique boo xam ne day permettre utilisateur bi quand même di interagir avec euh, les parties euh, yenn yenn partie wu système système ok ok alors je pense que sax déjà euh, waxaale nga sax déjà benn question bi nga xamante ni bëggoon naa ko laajte maanaam euh, ci épisode yi ñu weesu euh, dégg nañ gars yi naan Mac OS parce que dañ ko introduire noonu rek quoi naan Mac OS X dafa basé wu ci système d'exploitation Linux waaye Unix tu vois. alors bëggoon naa xam naka la loolu demee naka la dem lu tax ñu dafa basé ci Unix ak loolu naka la demee mais je pense que xaw nga ko brosser tuuti mais am na loo ci bëgg ajouter wala. oui oui tey jii soo bëggee defar sa système d'exploitation from scratch maanaam à partir de zéro. Mhm. Euh, day metti mhm. ok donc euh, tey jii système yi ñuy utiliser yëpp dafa am si lu ñuy basé si benn noyau bi ñu basé. donc yow da ngay jël noyau bi comme que noyau bi c'est libre. parce que dafa déjà il y a Unix et Unix. maanaam Unix avec euh, capital euh, U majuscule N majuscule I majuscule et X majuscule. kooku trademark la loolu trademark la mi ngi mel ni tey jii nga ne euh, IBM. Mm-hmm. voilà donc mm-hmm. kooku noonu on peut benn corporation la benn entreprise la ñoom nag ñoom moom unique maanaam noyau bi unique avec petit i petit i petit x nest pas maintenant noyau boobu noonu euh, yow sooy defar say système d'exploitation mën nga dem jënd noyau boobu noonu d'accord nga moom noyau bi maintenant si noyau boobu noonu nga construire si si kaw euh, ce système d'exploitation donc Mac OS noonu la bindoo tey dafa dem jëndi euh, licence su Unix ok mu moom ko ba pare mu jël noyau boobu noonu euh, construire si si kaw teg si kaw ay composants donc composants yooyu noonu mu teg si kaw loolu noonu mooy former tey jii système d'exploitation Mac OS parce que comme ni ma la ko tey jii nga ñëw construire à partir de zéro Mhm. Euh, ton système d'exploitation day xaw a métti mhm. en fait. parce que tu as besoin de de de beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de composants d'accord donc kooku noonu c'est day day xaw a métti même pour benn entreprise bu mag boo xam ne c'est Apple boo xam ne ils ont des des des dizaines de milliers d'ingénieurs d'accord donc da ngay dem jëndi benn affaire boo xam ne sa existe ba pare boo xam ne se c'est testé ça fonctionne ok après yow nag nga construire si euh, si kawam ba am li nga bëgg. voilà okay. donc Mac OS noonu la bindoo daal. alors ah mais eh, c'est c'est hyper intéressant euh, affaire boobu nañ ko expliquer euh, je pense que sax war na mën a pousser gars yi defar seen propre système d'exploitation jaaree ko Unix ah. c'est man j'attends Sénégalais yi gars mais est que am na Sénégalais yu defar ay système wala di ko jéem. Euh, je ne sais pas <laughs> pour être honnête je ne sais pas mais tey jii ah par exemple soo jëlee. benn misaal bi ñu mën a jël ci lool rek mi ngi mel ni tey jii Samsung wala euh, yenn yenn téléphone portable euh, yi ngay gis euh, des versions Android ok version Android téléphone yu bëri c'est-à-dire dañuy dem jëli système d'exploitation Android qui est un système à part ok mm-hmm. ñu ñëw builder de seen composant c'est-à-dire ñu yokk ci benn surcouche ba am ñoom seen propre système d'exploitation d'accord comme par exemple Samsung ils ont leur propre système d'exploitation boo xam ne c'est euh, day basé wu sur euh, Android c'est-à-dire le noyau le cœur xam ne dañuy jël juste des composants rejetés ko si quoi donc euh, téléphone Android yu bëri yi ngay gis les marques là c'est ils prennent juste le noyau Android qui est mm-hmm. open source tey jii maanaam mën nga si def lu la neex mm-hmm. d'accord donc nga jël modifier ko changer ces yenn aspects et puis tu te retrouves avec euh, un nouveau système d'exploitation. Okay. Donc c'est exactement la même chose avec euh, macOS. Euh, mm, mm, mm. je pense que c'est hyper clair et yaakaar naa ne gars yi comprendre nañu exactement tu vois man aussi jàng naa ci lu bari quoi. alors alors alors je pense que aussi euh, comme système d'exploitation yëpp quoi tu vois mooy Windows Linux ak yëpp yeneen système d'exploitation yu ñu fi waxtaanee bu ci nekk am na ay mbir yu ñu koy yu ñu lay mandargalee. alors Ibrahima système d'exploitation macOS lan mooy ay caractéristiques am ah, maanaam ay mandargaam yi gën a fës ak ay fonctionnalités ak yan ñooy fonctionnalités yi nga xamante ni moom la ñu fekk ci biir euh, macOS. waaw alors euh, peut-être kooku c'est mon avis ah. sama sama avis personnel la mais peut-être que euh, ça ne sera pas ñun ñëppay bokk avis bi ak man. mais tey jii man nu may caractériser macOS c'est sa simplicité. ah mm-hmm. maanaam dafa dafa yomb utiliser alors yomb utiliser encore une fois du ñëpp ay d'accord ak man. waaw <laughs> c'est vrai man bi ma njëkkee c'est vrai que man bi ma njëkkee am mag bi euh, xaw naa ko xaw naa xaw naa ko joxewaat ah. xaw naa ko joxewaat parce que <laughs> dama tàmm Windows ba <laughs> voilà xaw naa ko mais après bi ma demee ba habitué wu c'était beaucoup plus facile c'est vrai. Mm. exactement exactement euh, soo jugee Windows wala wala euh, nga ñëw dal ci Mac OS. c'est vrai que changement bi day euh, day xaw a métti tuuti Euh, parce que interface bi day changer euh, doo doo doo doo am yenn commande yi nga amoon wala yenn réflexe yi nga amoon bi nga doon utiliser Windows wala Linux donc looloo tax xam naa nit ñi di naan dafa xaw a dafa xaw a compliqué. Si, ok si, mais comme comme ni nga ko waxee ah après quelques jours quelques semaines euh, utilisation bu da siy am d'accord donc man ni ma koy caractériser aujourd'hui mooy euh, de par son utilisation qui vraiment assez simple. Hein? Mm tu as, l'interface qui est vraiment très facile à naviguer. Euh, naviguer, c'est interface bi yomb na euh, simple na tamit te c'est c'est un système d'exploitation robuste. tey jii euh, si Windows am na gars yi lu ñuy tooñee toujours Windows mooy the blue screen of death. ok, ou bien l'écran bleu de la mort. oui non xam naa lu baax voilà gis bëri si Windows min nañu loolu en fait. ok <laughs> donc ngay bi voilà mi ngi noonu <laughs> donc yooyu noonu c'est pas c'est pas I mean c'est des choses que que tu vas retrouver euh, forcément si euh, si Mac d'accord bon chaque opérateur euh, chaque système d'exploitation peut-être aussi. à, à ses propres inconvénients et cetera parce que yenn saa yi tamit mën nga utiliser des applications sur Mac muy cracher ou bien euh, soudainement son ordinateur redémarrer et cetera mais euh, du du c'est pas aussi fréquent comme sur Windows ou bien comme euh, sur les autres systèmes d'exploitation en fait donc tey jii da ngay am benn système boo xam ne quand même c'est c'est vraiment très très très fiable par rapport à ton utilisation ok et côté sécurité aussi côté sécurité tey jii on va te dire que par exemple bon kenn koo xam ne xamul peut-être bëri ci Mac il va te dire que ordinateur Mac du euh, du du jël virus du jàpp virus par ouais, exemple ouais, ouais, loolu noonu c'est des choses voilà c'est des choses qu'on dit souvent mais dina am dina am virus certes mais c'est pas comme ampleur u tey jii ordinateur Windows où ce système ce n'est plus utilisable mu yàq sey fichiers et cetera man depuis plus de dix ans que je suis sur Mac j'ai euh, musuma confronté euh, problème yooyu en fait ok ou euh, tey jii j'ai affecté par benn virus boo xam ne dafa yàq samay fichier wala day dupliquer samay samay samay dossier et cetera et cetera jamais jamais jamais ok peut-être dina am ay yenn malware yoo xam ne dina attaquer sama fil mais voilà avec yenn logiciel yoo xam ne voilà di nga ko mën a di nga ko mën a di leen mën a supprimer très très très facilement quoi donc du jël benn ampleur boo xam ne comme sur Windows où hmm. ta machine est euh, affectée et quasiment inutilisable voilà ça c'est hyper non mais je pense que loolu am na solo trop sax ñu xam ko euh, parce que système d'exploitation la boo xamante ni euh, ñi ko yor léegi mu ngi commencé bëri trop sax tu vois et euh, gën a am doole bu baax a baax et je pense que même li ñuy wax noonu mu ngi mel ni sax nga jógee ci téléphone Android dem téléphone iPhone da xaw a dépaysé tuuti mais à près boo ko utiliser tuuti tuuti rek après ngay gis ne sax dootoo mën a dellu ci Android parce bi ñuy waxtaanee tey nag ah, je pense que bi bi ñu ko créé yàgg na trop même sax lu jiitu lu jiitu Mac OS amoon na ay Mac OS X je pense tu vois bu yàgg ba tu vois euh, ay sa année 1984 xaw ma genre demee alors mais ba léegi da gis ne moo ngi évoluer ah, ñu koy gën defaraat di ci yokk ay mbir yu bees saa su nekk maanaam euh, moo ay version yoo xamante ni version yu euh, yu bees lay doon ñoo ngi génn quoi alors Ibrahima est-ce que mën nga ñu wax tuuti rapidement ci version ah, yi nga xamante ni moom mooy faral di génn à chaque fois ak lan moo leen wutale mais aussi euh, naka la ñuy génnee version yi saa su nekk naka la ñuy basé wu mhm. version yi. Mhm. Mhm. alors euh, comme ni nga ko waxee euh, Mac OS tuddul woon Mac OS ah. ça s'appelait OS X. d'accord donc euh, OS X X c'est c'est un chiffre romain qui euh, qui ok donc euh, donc comme ni ma la ko waxee sànq chaque année day am benn version bu bees buy génn donc la première version c'est Mac OS X kese kese maanaam te Mac OS X qui est en deux comme ni mala la ko waxee maintenant yeneen année yi chaque année day am une nouvelle version bon avant c'était euh, par intervalle de deux ans wala un an et demi mais léegi chaque intervalle chaque année euh, côté euh, fin septembre début octobre nga gis ne am na benn Mac OS euh, euh, bu gën ok donc léegi lu leen différencier c'est que euh, lu leen différencier principalement mooy chaque version bu génn day day yokk des fonctionnalités en fait ok par rapport à version euh, précédente bi euh, d'accord donc euh, on est bien d'accord que Mac OS Mac OS X il y a vingt ans c'est diamétralement opposé à Mac Mac OS 12 Monterey on est bien d'accord parce que déjà interface bi changé na il y a énormément de fonctionnalités et entre temps il y eu euh, am na ay ordinateurs yoo xam ne c'est beaucoup plus puissant que euh, c'est beaucoup plus puissant pour supporter en tout cas dernière version wu euh, Mac OS yi mais système lu ñu mën a lu ñu mën a jàpp mooy Mac OS en fait chaque année dina am benn nouvelle version bu génn te version bu génn en fait day indi ay ay yokkute. Mm-hmm. ok si si si par rapport en tout cas ak version bi ka bi ka précédé voilà donc euh, et tey jii benn benn changement drastique bi ñu mën a bi ñu mën a euh, bi ñu euh, mën a identifier mooy Mac OS par exemple Yosemite ok Mac OS Yosemite qui est qui est qui est sorti en 2014 ok Apple dafa changer drastiquement foofu noonu interface graphique bi ok hmm. par exemple avant les versions Mac OS euh, Yosemite on avait une interface Aqua lu ñuy wax interface Aqua où on avait des boutons skeuomorphiques euh, et cetera des des boutons assez bleus assez flashy et cetera mais avec Mac OS Yosemite par exemple qui est sorti en 2014 en octobre 2014 on a eu droit à des interfaces qui sont assez, euh, assez mhm. avec l'avènement du, euh, du flat design. Donc, euh, avec des couleurs qui sont assez vives, etc. Et euh, depuis macOS Yosemite, donc, euh, euh, identité graphique, bon, non, le, le Apple dit poursuivre, en fait, toujours avec ses interfaces assez flat maintenant, depuis, depuis Yosemite en Voilà. Ok, Alors, je pense qu'il y a eu mais je pense actuellement, tu as une bonne version de Nekini. Euh, actuellement ñu ngi si Mac OS euh, douze. qui se nomme Mac Mac OS euh, Monterey. mais dans deux mois ou bien dans même dans même un mois il y a Mac OS treize bu mm. nar a génn et ça se nomme Mac OS vingt trois. et ça sera version treize. Mac OS ok ok ça marche alors je pense que loolu am na am na solo trop et euh, juste euh, avant avant avant avant ñuy euh, jàllaat euh, ñi nga xamante ni ñoo ngi déglu podcast bi yaakaar nañu ko ñu ngi commencé xam yóbbaale ma alors yóbbaale ma nag épisode tey bi ñoom encore ñoom ñoo koy sponsorisé mu nekk benn application. covoiturage foo bëgg dem ci Sénégal mën nga ci mën nga ci mën nga ci dugg def sa recherche gis euh, ay oto yoo xamante mën nañ la yóbbaale ci njëg bu yomb alors ku bëgg am plus d'information nag ci application euh, yóbbaale ma boobu nag euh, mën nga xool note yi nga xamante ni moo nekk ci épisode bi et je pense que jëfandikoo ko am na solo trop aussi parce que jàppale suñu start-up yi nga xamante ni ñu ngi nekk Sénégal la te ñu ngi def bu am solo donc ku bëgg découvrir plus d'information ci yóbbaale ma maanaam application de la mën nga xool description podcast bi parce que ñoom ñoo sponsoriser ba bañ mën a def épisode bi nii normalement alors Ibrahima ku yàgg je pense intéressé wu nag ci mbiru mag di nga gis ne am na ay façon ordinateur mag yu bëri yoo xamante ni am na ginnaaw sax système de d'exploitation bi nga xamante ni moo nekk ci biir da ngay dégg ñu ne la ay mag MacBook Pro ak yu demee noonu ak ay ay mag MacBook Air ak je alors Ibrahima yan xeetu mag ñu am ak lan moo leen wutale ci seen biir maanaam Pro et Euh, euh, bëgg nañu xam exactement euh, nga leeral ñu déjà déjà lan moo indi affaire boobu noonu parce que tamit yenn saa yi di nga bëgg jënd ay mag mais doo xam exactement ban nga war a jënd en fonction aussi li nga xamante ni moom ngay liggéey aussi yan façon mag nga ñoo ñoo ñoo am exactement. ok alors euh, Ibrahima façon mag yi bëri na. façon mhm. mag yi bëri na mais toujours day dépendre yow si utilisation bi nga bi bëgg a def n'est-ce pas. Euh, parce que suñ ko mënee euh, suñ leen bëggee catégoriser en tout cas il y a il y a euh, deux sortes ah ñaari ñaari xeetu mag moo am da am benn xeet boo xam ne benn genre mag boo xam ne c'est benn pour utilisation personnel ah pour grand public pour utilisation personnelle grand hmm. public am beneen boo xam ne dañ koy jagleel tous tous les professionnels en fait ñoo xam ne seen seen liggéey dafa xaw a diis comme ay développeur ay vidéaste ay photographe et cetera et cetera et cetera d'accord donc si noonu di dañuy am euh, euh, te si Mac yooyu tamit am na euh, des des versions desktop ok mooy hmm. ordinateur bu bureau yi et des versions laptop mooy ordinateur portable d'accord donc da ngay gis ne di nga am benn MacBook Air di am MacBook Pro OK pour euh, tout ce qui est laptop euh, ordinateur portable donc pour ordinateur portable yi ñaar yooyu noonu ngay am euh, MacBook Air ak MacBook Pro OK et euh, léegi pour yeneen yi ordinateur de bureau yi da ngay am euh, benn iMac par exemple iMac mooy ah, benn Mac xam ne day intégré lépp day intégré unité centrale beex écran bi di nga am tamit Mac mini toujours c'est ordinateur de bureau yi maintenant euh, cette année si biir année bi wala suma ma juumulee année dernière si la Mac Studio génn Mac Studio aussi c'est euh, c'est pour les euh, professionnels ah et euh, il y aussi euh, les Mac Pro donc da ngay am six xeetu Mac euh, su ma ko donc da ngay am un MacBook Air MacBook Pro iMac Mac Mini Mac Studio ak Mac Pro donc mm. six okay. genre ordinateur Mac yooyu noonu moo ñoo am quoi mu nekk li nga xamante ni yenn yi laptop la maanaam ay ordinateur yu ndaw yi nga yóbbu sa bureau yenn mooy ordinateur desktop desktop yi nga xamante ni moom mooy nekk ci mhm. na ñu xam ko parce que des fois da ngay bëgg jënd euh, Mac mais en fait da koy euh, comprendre ban nga war a jënd ay Mac yi wax ñi bu fekkee ne da nga nekk koo xamante ni xamuloo environnement bu baax rek mun nga réer ci vois mais euh, c'est bien ñu xam ko exactement ouais donc pour un petit guide par exemple bu fekkee ne yow tu es professionnel donc nga mhm. tu peux choisir en tout cas entre un MacBook Pro parce que pro bi mooy professionnel pro ça signifie juste benn diminutif la benn diminutif professionnel la donc c'est euh, MacBook Pro c'est on va dire que pour professionnel yi la n'est-ce pas maintenant bu fekkee ne loolu noonu da soxla portabilité maanaam euh, da ngay jóge sa kër euh, sa ordinateur da nga ko bëgg utiliser sa kër utiliser ko sa bureau wala utiliser ko euh, à l'université à l'école je sais pas moi donc kooku noonu ordinateur portable ngay soxla donc tu peux aller vers un MacBook exactement maintenant bu fekkee ne yow euh, tu sais que lii nii du bouger soxla woo muy bouger et cetera donc bu boobaa tu peux opter pour un pour un wala un Mac Studio wala un Mac Mini ok sachant que bu si nekk en fait euh, daf lay jox euh, benn puissance plus ou moins machine yi day xaw a gën a dañuy xaw a gënante si en terme de puissance quoi donc yow yaay xool ban genre puissance ngay soxla bu fekkee ne ay ay ay travaux yu xaw a diis a diis a comme euh, comme les vidéastes la euh, les les monteurs vidéo et cetera euh, donc bu dee genre yooyu noonu tu as a à wut benn Mac Studio par exemple tu vois parce que moom mooy gën a supporter en tout cas charge de de travail bi nga koy jox mais bu fekkee ne par exemple pour ce ce ce genre yi nga xam ne ay podcast la ñuy def et cetera donc ça c'est c'est un MacBook Pro moo leen di arrangé bu fekkee ne ils veulent quelque chose de de portable hein, de portatif bu fekkee ne c'est c'est figé peut-être un iMac ok mais mm-hmm. bu fekkee ne par exemple euh, pour utilisation grand grand grand usage de nga ko bëgg def pour utilisation globale par exemple soxlawoo a tâche yu diis yeex affaire yooyu peut-être pour dem euh, si internet bi surfer def quelques tâches de petit marketing de de marketing plutôt ubbi euh, office donc kooku noonu moo leen gën a yomb. ok et ça pourra gérer tout ça. Mhm. incha allah. ok non je pense que c'est hyper intéressant euh, nga xam loolu man mii bi may ut sama mag bi nii amoon na ay choix yoo xamante ni je comprenais pas mhm. lan mooy différence entre airbag pro bi mhm. après voilà da nga koy mën a mais je pense que c'est hyper important et je pense que ñu bëri dinañ leen amal njëriñ quoi alors Ibrahima mënuñoo wax nag ci mag. Mac euh, d'une manière générale ak Mac OS. Mm-hmm. te waxuñu ci li nga xamante ni moom lañ naan App Store. Mm-hmm. Ibrahima dama lay bàyyi exactement nga wax ñu lan mooy App Store mm-hmm. ak lan moo nekk njëriñam. alors euh, store euh, mooy application store maanaam suñ koy tekki. mooy euh, suñ koy tekki déjà en nasaraan mooy boutique d'application suñ koy tekki en wolof mooy euh, <laughs> boutique boo xam ne dañ ci am euh, benn benn lien boo xam ne dañ ci am ay application donc application yooyu tey jii ce sont juste des des des des logiciels yoo xam ne dañ koy mën a installer ci sa ordinateur Mac ok et euh, donc application yi on a yow je pense que amoon nga ci benn podcast tamit Euh, parlant des, mmh, des, des applications donc euh, App Store daal benn lieu la benn place la boo xam ne da nga koy ubbi tu peux chercher ay applications yoo xam ne da nga koy installer si sa si sa Mac ok donc ça vient avec saa yoo ubbee benn mag certainement di nga si fekk di nga si fekk App Store donc ça te permet de télécharger et d'installer ay euh, ay application c'est principalement ça donc application yi nag maintenant mën na payante comme mën na gratuite ok donc euh, mën nga ko amee mën nga am ay application yoo xam ne mën nga utiliser gratuitement maanaam doo fay mais am na yeneen mhm. application yoo xam ne euh, da ngay fay pour pour installer ko et ça c'est c'est la des des applications tamit sur nga xam ne tey jii pour utiliser leen il faut que nga fay pour mën a jënd application boobu noonu commencé ko utiliser si sa si sa matric te looloo tax en fait ñu naan mat en fait ñu bëri bëgguñu ko tamit ndax euh, raison boobu noonu en tout cas en Afrique ici parce que nit ñi déjà pour utiliser yenn application yi parce que du bépp application moo si compatible ça c'est de un te pour utiliser yenn application yi il faut que nga jënd leen il faut que nga jënd licence bi parce que sur Mac il est, il est très difficile aujourd'hui nga nga trouver mm-hmm. ay euh, ay crack par exemple comme euh, comme mm-hmm. niñ ko doon defee sur Windows ou da ngay gis benn application boo xam ne euh, dañ koy jaay mais yow tu vas am benn crack Euh, télécharger application bi utiliser crack bi et tu vas utiliser euh, l'application comme ça gratuitement ok mais sur Mac un peu plus difficile je ne dis pas que c'est impossible mais euh, day xaw a day xaw a jafe nga am. Euh, les les crans d'application. moo tax tey jii euh, pour pour utiliser quand même un Mac il faut quand même que. Euh, mhm. dépendant en tout cas si sa utilisation ngay jënd yenn application Ouais. ça c'est vrai ça c'est vrai alors je pense que explication mag bi je pense que c'est euh, bi leer na yoo xam ne exactement la mooy après et je pense que euh, mën nañu wax ni daal App Store benn magasin la boo xamante ni foofu la euh, fekk bépp application boo xamante ni moom mooy dox ci système d'exploitation macOS yi tu vois alors application yooyu nag je pense que ay nit ñoo koy defar. yu ci mel ni Ibrahima Ciss nga xamante ni euh, seen xam-xam dafa màcc ci wàllu boobu tu vois moo tax nag sax euh, foog ma laaj la naka ngeen di def ba defar application yooyu ak yan jumtukaay ngeen di jëfandikoo ci xalaat bi ci defar bi ba ci ni ngeen koy dugalee sax ci App Store bi euh, pour ñëpp mun ci jot. Mhm, mhm. d'accord alors jumtukaay yi déjà Apple. Euh, il met déjà à la disposition des développeurs bépp jumtukaay boo xam ne c'est pour développer ay application pour def ko certain d' accord on a am nañu ay outils comme par exemple Xcode boo xam ne environnement de développement la ok Xcode c' est un environnement de développement boo xam ne euh, mën nga jëfandikoo pour développer lépp luy application ci ci plateforme Apple yi pas juste des applications pour Mac mais ay applications pour euh, pour pour Mac pour iPhone pour euh, tvOS e pour Apple Watch aussi donc euh, déjà Apple daf lay daf lay jox outil yooyu noonu te daf la koy jox gratuitement aussi donc euh, comme niñ ko waxee léegi nii si store bi si magasin bi mën nga dem si store bi télécharger Xcode par exemple ok et une fois que nga télécharger ko ba am ko si sa biir nga ko ubbi et mm-hmm. commencer di di programmer say interface et cetera donc kooku noonu sa application yi ça se crée via Xcode à l'aide d'un langage de programmation comme objectif C wala wala C voilà. Mmh. Mmh. ok je pense que tey euh, Xcode boobu je pense que tey am na solo trop mm-hmm. comme li ma koy waxee à chaque fois ci biir épisode yi ñuy def mënuñoo wax lép lépp lépp lépp mm-hmm. mais dañuy junj rek comme ça nag après yow mi nga xamante ni yow yaay déglu mm-hmm. yow yaay dem sur internet wala nga gëstu ji wala nga jege ñu mel ni ñoom Ibrahima Ciss pour gën a mën a yokk sa xam-xam xam exactement nag la ñuy développer application yooyu mais ñun fii dañuy junj buñ junjee nag après yow nga dem mottali des quoi sur euh, bibliothèque yeeg ak yu demee noonu je pense que loolu am na solo trop quoi alors euh, alors Ibrahima émission bi nag léegi tey mu ngi waaj a jeex mais nag fokk ma laaj la rapidement ñaari question alors bi njëkk nag euh, ci wàllum sécurité la maanaam kaaraange mhm. est-ce que système Mac OS am na sécurité euh, yenn saa yi nag euh, damay dégg ñu naan ñuy wax ay ay affaire fichier X protect bu nga xamante ni dafay liste ay malware yi fa nekk xam yu demee noonu quoi mais aussi ay gatekeeper alors lan nga ñu mën a wax d'une manière général daal ci sécurité Mac OS. waaw man depuis samay utilisation en tout cas sur système d'exploitation bi. Euh, mën naa wax ne c'est c'est un système qui est super super super sécurisé bon euh, un système sécurisé à cent pour cent moom loolu moom déjà il faut savoir que amul donc euh, il y aura ah, toujours des failles et comme ni ñu ko waxee mhm. euh, chaque année en fait il y comme ni ñu ko waxee day am ay versions yuy génn et version yi du indi kese ay euh, ay ay ay nouveauté par rapport ak euh, ancien système mais day indi tamit ce qu'on appelle des des de sécurité maanaam si version bii nii par exemple version bii ñu nekk benn faille de sécurité gis nañ ko donc prochaine prochaine version bi wala prochaine mise à jour bi day fixer day régler problème de sécurité yooyu moom donc problème de sécurité en fait c'est c'est c'est c'est présent ok c'est euh, c'est c'est omniprésent donc dañ koy par exemple si chaque version en fait chaque version. Euh, okay. OS Mac OS. ok donc euh, benn affaire la boo xam ne toujours en fait ingénieur Apple yi dañ koy gis après ñu résoudre ko et euh, proposer benn mise à jour pour euh, résoudre euh, pour pour que utilisateurs yi migrer en tout cas si mise à jour bi buy régler problème sécurité bi am donc côté sécurité toujours toujours toujours c'est un travail boo xam ne toujours day continuer d'accord. Euh, il y aura toujours des failles de sécurité yoo xam ne nit ñi dañ koy découvrir et ces ingénieurs chez Apple vont fixer euh, ces problèmes donc loo xam ne c'est c'est continuel la day day continuer d'accord mais tey jii pas au point de par exemple yàq sa ordinateur ou quelque chose comme comme ni ma ko waxee woon mm-hmm. sànqal si njëlbeen bi pas pas man par exemple j'ai jamais rencontré euh, ay ay problèmes de sécurité majeurs vraiment pour être honnête depuis que j'utilise euh, j'utilise Mac bon am na ñeneen ñoo xam ne ils ont été peut-être moins chanceux que moi yoo xam ne peut-être euh, am rencontré nañ des des problèmes euh, yoo xam ne xaw na sérieux tuuti mais toujours problème yooyu noonu c'est ça sera toujours fixé en tout cas euh, par ay ay nouvelles mises à jour n'est-ce pas et l'autre chose voilà aussi c'est que mm-hmm. chaque application Euh, il faut faire attention aussi quand, quand on est euh, sur Mac. Euh, euh, li ñu war a prêter attention mooy di télécharger des applications yoo xam ne day jógee sur store bi directement. pourquoi cela parce que quand tu quand nit ki su télécharger une application boo xam ne dafa jógee sur store bi cela veut dire que Apple en fait def na tout ce qui est euh, vérification côté sécurité c'est application bi en elle-même. d'accord parce que bépp application bu nekk ci bi xamal ne derrière balaa muy nekk ci bi dafa am ay ay ay vérification yu mu jaar te ay verification step mu jaar yoo xam ne ingénieur Apple yi ñu ñoo télécharger d'abord euh, application bi vérifier ko xool ndax amul ay failles de sécurité et cetera et cetera donc c'est à la suite de toutes ces vérifications là que Apple en fait autorise application bi pour mu dem ci store bi donc quand Apple aujourd'hui autorise une application pour mu dem ci store maanaam pour nga gis ko ci store bi cela veut dire que application boobu noonu jaar na benn vérification process boo xam ne tu peux être sûr que application boobu noonu tey jii du indi du du du indi ay problème sa ordinateur voilà et euh, voilà donc kooku noonu c'est le premier conseil que j'ai à le second conseil mooy même parce que c'est pas application yëpp ñooy disponible ci store bi aussi ça il faut le dire. Euh, a si, des fois nga xool doo gis quoi. exactement il y a des applications yoo xam ne mën na mën na disponible ci euh, surtout euh, développeur bi mën na disponible ci ay site et cetera yoo xam ne da koy télécharger directement mais même application yooyu noonu tey jii pour nga installer ko ci sa ci sa machine. Euh, la première fois que tu lances application bi application bi daf lay laaj ndax wóolu nga développeur bi bi développer application bi n'est-ce pas donc euh, et il te donne toujours l'option de choisir entre oui et non ok si tu choisis non cela veut dire que application bi du mës a du a daw si euh, si machine bi parce que c'est pas une application qui a été vérifiée euh, n'est-ce pas par euh, par Apple e développeurs yi tamit euh, am nañu choix par exemple man tey jii waxtu salaat euh, dont on a parlé mercredi dernier waxtu salaat mën naa ko développé mhm. euh, def ko mhm. sama site professionnel en fait def ko si sama site mais damay wax Apple ñu def benn ce qu'on appelle une notarisation notarisation mooy da ngay développé application bi nga envoyé build bi wala APK bi comme ni ko développeur Android Android bi di waxee nga envoyé ko Apple donc sa Apple daf vérifier su ko vérifier ba ne la ok application bi maintenant c'est bon amul benn souci majeur wala amul benn problème de sécurité ñu envoyé waat APK bi ne la maintenant mën nga ko distribuer d'accord donc léegi soo ko distribuer maintenant utilisateurs yi mën nañu ko dinañ ko mën a utiliser sans sans problème donc il faut il faut en tout cas soit nga télécharger application yi directement depuis euh, l'App Store soit nga télécharger une application boo xam ne xam nga ne ñii ils vont jamais essayer de faire des choses euh, assez néfastes assez négatives sur sa machine ay développeurs yu wóolu la wala euh, entreprise boo wóolu la nga télé nga télécharger seen application ok alors je pense que loolu am na solo bu baax a baax c'est-à-dire problème de sécurité la mhm. balaa ngay installer benn application li gën mooy nga jëlee ji ko ci App Store bi tu vois wala na la leer na développeur bi ko bi ko def aussi euh, ku wóor la te deful benn application ba benn benn amul benn faille de sécurité bu nekk ci biir boo xamante ni mën nañ ko pour après attaquer la parce que voilà dina ci am application yoo xamante ni mën nañ ci dugal loo xamante ni yow boo ko installer sa machine euh, nit ñi mën nañ la attaquer wala yu demee noonu donc moo tax am na solo bu baax baax euh, leeral yooyu nga xamante ni indi nga ko ci côté sécurité bi pense que c'est très bien. Mhm. alors laaj beneen bi mujj nag euh, ginnaaw sa jaar-jaar ci système mag parce que xam naa ne yaa ngi koy wax léegi plus de dix ans yaa ngi utiliser système mag yi tu vois est-ce que mën nga ñu wax ñaari mbir yoo xamante ni tey moo tax yow ngay jëfandikoo mag ci sa euh, ci sa liggéey. ok dans les années 2011 2012 je faisais de l'infographie ok donc euh, temps yooyu noonu en fait je m'étais orienté plus vers euh, tout ce qui était web design ok et temps yooyu amoon na benn application boo xam ne c'était une application très célèbre boo xam ne ça se nomme Sketch ok, mhm. mais application bi malheureusement ce n'est disponible que sur Mac ok, mais application bi moom moo gënoon méngoo ak man li ma bëggoon def parce que temps yooyu def bi web design mhm. avec Photoshop fait dafa xawul diis c'était une tâche euh, vraiment très très très lourde moo tax en fait man ma man ma migrer principalement vers euh, parce que ce qu'il faut savoir aussi avant de faire la migration il faut s'assurer que tey jii euh, yenn application yi nga doon utiliser peut-être sur Windows wala Linux ça sera plus disponible chez Mac loolu moom il faut que mu doon benn benn certitude mais fort heureusement euh, man en tout cas si sama workflow euh, j'ai besoin principalement de deux applications mooy application sketch pour faire euh, du design principalement mhm. ah, application euh, Xcode boo xam ne Xcode malheureusement mm -hmm. ce n'est disponible que sur Mac aussi d'accord donc pour faire du développement euh, du développement Apple développement iOS ou euh, ou Mac OS léegi nag bu fekkee ne dama soxla yeneen par exemple sur Windows doon naa doon naa faral trop di jouer di def des jeux vidéo avec ma machine donc euh, dans ce cas-là juste euh, une autre machine Windows boo xam ne dama koy bindee si yenn tâches yi quoi <laughs> comme tâche euh, vidéo ou, euh, consort mais euh, Mac pour utiliser ko de, de manière assez professionnelle donc man principalement sama usage bu Mac loolu la c'est utilisé professionnellement pour mon travail euh, professionnel. Machallah, principalement. Machallah. C'est-à-dire tout ce qui est design avec euh, Sketch ak aussi développement bi avec Xcode alors je pense que loolu leer na trop sax alors euh, comme ni ñu koy waxee ci wolof nag li duuf ci nag bi xajul ci cin bi épisode bi jeex na euh, bëgg nañ di waxtaan ak yow à tout moment et je pense que di nga ñëwaat euh, Ibrahima parce que ci fin saison bi dinañ def benn épisode boo xamante ni dañuy dajalee Euh, waa Windows waa Linux ak waa Mac OS mhm. def benn épisode boo xamante ni bu toj lay doon je pense. et je pense que épisode boobu foog nga ñëw aussi pour que gars yi mu mun a am benn dualité gars yi mun a waxtaan bu baax ci système d'exploitation yooyu incha allah pour tëj saison bi. alors Ibrahima lan moo nekk sa mot de la fin. waaw mais euh, di lay jaajëfal comme mm. euh, comme d'habitude euh, macha allah podcast bi am na am na solo lool am na njëriñ lool. Mm, mm. di la ñaanal suñu borom yóbbu ko fu raw sa njort incha allah. en tout cas man c'est c'est toujours un plaisir de venir en tout cas discuter. avec toi macha allah. quelque chose que j'apprécie bien. macha allah di di ziar aussi sa auditeurs Eh, di leen jéggalu baat bu diis bi tamit. <laughs> non bi leer na kàllaama bi leer na trop macha allah. <laughs> voilà donc euh, di jaajëfal ñëpp euh, euh, di lay ñaan wér-wér. ok di lay wax tamit peut-être à la prochaine pour un nouvel épisode. incha allah non ngay ñëwaat incha allah da ñëwaat ci podcast Wolof Tech bi et je pense que yàgg nga sax miin nga podcast bu baax baax def nañu ak yow ay épisodes yu bëri et mercredi bi passé moo ci mujj alors. merci beaucoup Ibrahima ñu ngi leen di jox daje encore ci beneen semaine incha allah ak beneen épisode bu bees mais en attendant mën ngeen dem ci euh, internet ngeen télécharger ay application yu mel ni Spotify wala yu mel ni Google euh, podcast wala Apple podcast ngeen recherche Wolof Tech di ngeen ko fa fekk te à tout moment di ngeen mën di déglu épisode yi nga xamante ni mooy épisode yu bees yi quoi bu leen fàtte nag aussi abonné comme ça ngeen mën di jot à chaque fois épisode yu bees yi ñu ngi préparé nag yu bëri bëri lu ci mel ni euh, juróomi simili ak ak yeneen tu vois ak beneen plateforme bu bees loolu yëpp dina ñëw incha allah ci fan yu yu yàggul dara incha allah allez merci beaucoup ciao ciao à la semaine prochaine.